Bokk Yaakaar investi comme Tedris au niveau di département de Rufisque waaw lii nag peut être dañ ciy waxtaan tuuti rek mu def synthèse bi nga xamante ne mooy durant les vingt et un jours yi nga xamante ne sillonné nañ ko département de Rufisque bi yëpp ànd ak suñu kilifa nga xamante ne mooy le euh, Ngagne Diop ci candidat bu benn Bokk Yaakaar fii muy tête de liste départementale bi bilan bi nag ak synthèse lañ def bilan bi nag vraiment dugg nañ ci askan bi waxtaan nañu ak ñoom ci li nga xamante ne mooy élection législative bi ñu jëm di élection présidentielle di élection communale ñu doon élection législative ñu fexe joxaat le président Macky Sall soit du 31 juillet joxaat ko majorité absolue ndax li tax ñun au département wala commune Bambilor wala dans les trois C war nañ ko mën a joxaat le président Macky Sall mooy ndukkal bi ñu bi nga xam ne amel nañ ko mooy 8 ans ba may nekk ci politique ba léegi suñu am. candidat bu dëkk ci département de Mbour dëkk biir commune Bambilor jiite tête de liste départementale loolu nag buñ ko amee mu sagu commune bi di sagu 4 seey nga xam te tey président Macky Sall defal nañu ko ñun waa côté bi nga xam te ne fi dëkk war nañ ko mën a delloo njukkal ñu ñu ko delloo njukkal nag mooy lenn mooy fexe au soir du 31 juillet joxe une majorité écrasante yaakaar naa ne loolu mooy lam moom la ñu Macky Sall di xaar si ñu muy président li tax nag mu war ko am mooy côté bi nga xam te ne moom lañ dëkk fii yaakaar naa